sëriñ Touba la am te yaakaar yaakaari benn murit bu jàll sëriñ Touba amul mën naa daal fu ne di bërëmu waaye bu yegsee fi sëriñ fi lay yem. nee na ca njëlbéen ga ay mbokki taalibe ñoo ko sàkku ci moom mu taalifal leen téere bu ñuy mën a xame ay teggin tax mu def ko te ku nekk xam na ne sëriñ bi féete woon kaw taalibe yi féete suuf waaye ñoo sàkku ci moom loolu mu defal leen. saxiixul yi muy téereb xaddis boobu ki ko taarif di al buxaari moomu nee na ca njëlbéen ga la tax mu taalif ko dafa toogoon ci jataay dégg ku naan cey ku foboon xaddis yu wér yépp dajale ko ci benn téere dana am solo de nee na mu bàyyi xel loola di ca dox ba taalif téere bu mag boobee nga xam ne ka waxoon loola sax mën naa am xamul ne moo tax mu taalif téeréem boobu de saxiixu Buxaari ak njariñ dim jur kon nga xam lu baax lay sa warugar mooy nga jot li ko rek nit ña jaar nañ ca ak jaaruñ ci nag meneen mbir la kon laayante biir ak gis lu baax di ko tegtal sa mbokkam jullit <coughs> luy firnde la ci ne mbokku nga nga ko moom itam def na la mbokk léeg-léeg sax ci biir jullit ñi rek am koo xamante ni sunu borom mën na koo nattoo ci ak mooy yàlla waaye bu boobaa na suturaal boppam te bañ a jéebaane boppam ba nga xamante ni ku xamutoon mooy boogee mën naa bañ a yegg ci moom na def noonu suturaal boppam te yaakaar yërmaande yàlla te nangoo tuub ndax inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutatahirin bokk na ci njëriñal mbokkoo googu mooy dana tax ak maandu di dox ci diggante jullit ñi ci mbiri dund gépp tooñ itam dana fi jóge ndax tooñ itam ni ko sëñ Cheikh Mbacke waxee léegi tasaara tasaaroo na ci àdduna te bokk na ca la koy indi li ci ëpp mooy ak réer te bokk na ci solution yi indi ci ne jàmm bu ñu bëggee mu sax réer da fiy jóge moom la seex Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké radiyallahu anhu tontoon itam délégation jamaatu Ibaadu Rahmaan ba dem naa ci mu ndaje amiru jamaatu Ibaadu Rahmaan wax fa ne demoon nañ di seet Cheikh Mouhamadou Mourtada fekk ko ci këram gi ca géejawaay yàlla def fekk mu jóg bay waaj dugg ci oto bi ngir dem ñu ne ko ñii ab délégation bu jóge ci Ibaadu Rahmaan la ñëwoon doon la seet si amir ba moo nett ne la jataay bay gàtt-gàtt wax na leen fa kàddu goo xamante nii jëriñu nañ ca ba tax mu ñu ko nettali moom te na daneen wax na na góor góorlu ba ak réer jóge fi ndax loraange ak tooñaange goo gis ci kaw suuf nee na réer ko fi indi su fi réer jógee lépp jàpp loola yonent bi aleyhi salaatu wa salaam jëmmaloon na ko bu yàgg ndax nee na woon ñiy àttewul sama kanam tey ay jullit ñépp laa yemale giñ sax ne Fatima mii di doomam de sa sàccoon man Muhammad naa dagg ab loxo law anna Fatimata bint Muhammad saraxat la qataatu loola maandu fa la yem te maandu mi ngi juddoo ci mbokkoo bu dëggu ndax tooñ dafay jóge booba maandu lay dox kon loolu mooy pàcc bi njëkkoon te mooy mbokkoo ak njëriñ yi mu am wala lenn ci ay njëriñ yi mu am bu pàccam ñaareel bi nag mooy diiney lislaam diiney xajoo la diiney xajoo mooy diiney eh, li ñuy wax tolérance mooy nangul keneen ku bokkut ak moom ab gis-gis nangul ko muy dund ci wetam te du ko bundu xatal loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bi ma borom di yebal ngir ma nekk ab yónnente day diine ji ma jox diiney tolérance la diiney xajoo la boistu bil xanafiyati samha moo tax nag xajoo boobu nga xamante ni lislaam xajoo na ko ñeneen ñi moo fi bàyyi ba léegi ci ngay gis ci réew yi nga xam ne ay jullit daf koo dëkke nga fay gis yeneen diine yu bokkut ak lislaam te jullit ñi ëpp fa doole lislaam dafa xajoo yeneen diine yi am tolérance nangul leen ci ñuy dund ci foo xamante ni sax ay jullit ñoo fa ëpp loolu la sunu borom di wax ne jullit balaa ak ngëm a mat day gëm yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ni mu gëmee ibrahim na muy gëmee isa ak muusa du ca teqale kenn laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli xajoo googu nag tegtalewul ne da gis sa àq yow jullit bi nga bàyyi ko ngir doy de déedéet tekkiwul loolu waaye mooy may nit ki jàmm bam doxal lam bëgg a doxal bu bëggee dugg ci diine lislaam dugg ci su bëggut tam du ca dugg mooy nga wormaal ko guy dox diggante jullit ak kudul jullit nangul ko àq yi nga xam ne doomu aadama daf koo am liberté yi nga xamante ni dañ ko ko may nga nangul ko ko ndax loolu su amee ci la ay xeet yu wuute di mën a dund àndandoo di dund te wuute ci yu baree bari waaye mën na dundandoo ci jenn suuf ngir ne ak diin huwal muamala diine dëgg-dëgg mooy jëflante te teg ko ci jëflante bu rafet moo tax Ubaadatu bnu Saamit waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko dama lay laaj jëf yi ban moo ci gën gën yónnante bi ne ko xanaa nga gëm yàlla ak jihaad ci yoonu yàlla ñaar yooyu Ubaada ne ko man dey bëgg naa nga wax ma lu gën a woyof loolu mu ne ko as asamaahatu wa sabru mooy nga xajoo nit ñi ak di muñ loolu kon tam tegtale ne xajoo am na wàccuwaay bu rëy rëy ci biir lislaam xajoo googu nag ay xeet la ba ca njëkk mooy li ñuy tuddee at tasaamuxu diin yi mooy nga xajoo ci wàllu diine loolu li muy tegtaleem ak li muy firi mooy ay diine yu wuute te nangoo dund ci benn suuf ñoom ñëpp ñu jegeendoo te ku nekk may aafiya may jàmm sa morom ku nekk itam di doxal sa diine na nga ko bëggee du am parparloo du am ràññatle ci diggante nit ñi loolu xajoo boobu itam fu nekk xam na ne lislaam bàyyi na ko xel moo tax noonu ñu ko njëkkoon waxee jullit dafay gëm mboolem téere yi sunu borom tabaaraka wa taala ma sa wàcce day gëm alquran ni mu gëmee tawreet ni mu gëmee zaboor ni mu gëmee injil naka noonu itam day xajoo keneen ci wàllu xalaat nangu di waxtaan ak moom kooko di wuuteeg moom mu nangu ko déglu du ko jànni du farfarloo te su ko waxee ak dëgg mu nangu ko donte ne ab jullit la donte ne kay yéefar la loolu nag lislaam yàgg na cee dox ay jéego lool ndax relation bi daan dox diggante lislaam ak yeneen yi ñuy tudd ay diine relation bu mas rafet la nag ndax alquran daf wax ak sax daf laa waxoon ne na nga koy def ci anam nga gën a rafete uddu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasana wa jaadilhum billati hiya ahsan loolu ci la lislaam taxawe woon ba ne duma gàkkenn ci ne ko kaay nekk jullit laa ikraha fi diin du màgga kenn duma ma forcé kenn ci ne ko kaay nekk ab jullit li ma bëgg daal man lislaam mooy nit ku nekk nañ ko may jàmm nañ ko may liberté lu muy tànn ci pas-pasam mu tànn ko waaye nañ may jullit muy woote jëme ci lislaamam nag ba ñëpp dégg ko loolu rek la soxla waaye forcé wu ma néew ma jullit da ngay yéefar bi ne ko foo jaar nekk ab jullit walla ma def nangam walla nangam moo tax nag ci bind yoo xamante ni jëf la sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bi jullit yi ubbee baytul muqaddas ba mu ñëw di jël si caabi yi ñam fa fekkoon tañ nekkoon ay chrétien du nekkuñu woon ay jullit dafa digal jullit ne leen ñii de bokku ñoo ñoom diine ay nasraan lañ waaye bu kenn nangu seeni kër donte ne ñoo yilif suuf si tey jii bu kenn nangu seeni kër bu kenn màbbu seeni kër bu kenn jël seeni alal bu leen kenn forcé itam na ngeen bàyyi na leen da ngeen di bàyyi seen diine loola mbokki jullit yi du mat a bàyyi xel la ku toll na Amar ibn Xattaab ubbi am ab dëkk ba yilif ko ñëw di jël caabi yi jullit yi war faa doxal seen lislaam ñu fekk fa ñeneen mu ne leen ñii ngeen fi fekk te duñu ay jullit jëf leen te leen ñoom nii bu leen nangu seeni alal bu leen màbb seen kër bu leen nangu seeni kër bu leen màbb seeni kër bu leen forcé ñu bàyyi ci ñu bàyyi seen diine loola fa la xajoo mën a yem noonu lislaam waxe ne diine yi asamaan yépp ñoo bokk balluwaay ba wax ko ci shar'a lakum ne diini maa wasaa yu ñu junju noonu la waxee tamit yonente yépp ay mbokk lañ kenn gënu ca morom ja ci wàllu nubuwa maam garaat bi leen yàlla jox ci def leen ay yonente ñoo ca tolloo ay mbokk lañ ca ñoo ca tolloo kenn gënu ca keneen ka moo tax yonente yàlla muhammad aleyhi salaatu wasalaam sax bu daa tudd kenn ci ñoom danaan axi ibrahim wala axi soaybu ay mbokk la leen defoon loolu kon lislaam moo ko fi indi ngir xam ne ne yónnente bu yàlla mas a yónni ak moroomam yónnenteem ay mbokk lañ waaye amuñ lu fuñ sutante wala fuñ gënanante ci wàllu nubuwa muy wàllu ak yónnent moo tax taxoon alxuraan di wax di firndeel loolu ne di firndeel xajoo googu ne woon quulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa isxaqa wa yaqub di wax ba ne laa nufarriq bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun duñ ci teqale kenn ak moroom ja ñoom ñëpp ay yonent lañ ñun ñëpp itam ànd nañ nangul leen waaye foofu suñ mbir bi yëpp itam jébbal ko yàlla tabaraka wa taala kon loolu itam moo indi woon laa ikraha fi diin jooju ñu waxoon ci kaw xajoo googu itam nga xam ne islaam daf koo xajoo ñeneen ñi nga xam ne dañoo yor leneen luñ tudde ay diine moo tax lislaam wormaal barab ya ñuy jaamoo yàlla walla boog barab yi ñuy jaamoo lañ tudde yàlla ñoom ne bu ko kenn yàq bu ko kenn mab walaw laa dafullahi nnaasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawaamiu wa biyaun wa salawaatun wa masaajid yuzkaru fii hasmullahi kasira barab yoo xamante ni sii fi dañ fay jaamoo yàlla digaluñ ab jullit na ko ne na ko màbb église yi nga xam ne nasaraan dañ fay jaamoo lañ tudde yàlla lislaam digalul jullit ne nañ ko màbb ndax buñ ko doon màbb jullit yi réew yi nga xam ne jullit yaa fa ëpp doole ba jëmmi jamono jii dund fa ay siècle ña fa fekkoon ay église ak barab yu yahood yi doon jaamoo te jëlewuñ ko fa loola kon dafay tegtal ne lislaam xajoo woon na loola xajoo woon na seen barab yooyu ñuy jaamoo lañ tudde yàlla ba war ko loola itam xajoo ak keneen kiñ bokkalu diine moo tax mu ne woon seenaw ñam jullit yi man ngeen koo lekk man ngeen a lekk ñamu yahood yi ak nasaraan yi ni nga xam ne ñoom itam am nañ sañ-sañu lekk seenu ñam yéen jullit ñi wa la dina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun ngir xajoo keneen itam moo taxoon jullit du noonoo moroomam nitam ngir ne ab yéefar la déedéet jullit amut sañ-sañu noonoo mbokkam nitam ngir ne ab yéefar la déedéet waaye da koy nangul ne ab yéefar la muy jëflante moom ci nite ci nite te di ko laabiir nag laabire ngir mu dugg ci lislaam waaye nag du ko noonoo ngir ne ab yéefar la rek loolu ah, da koy bàyyi xam ne ëllëg ka di àtte wala seen ab àtta mi ngi ci loxol borom bi tabaaraka wa taala kon jullit du noonoo ak nit ngir ne ab yéefar la rek ngir mu noonoo ko ngir loolu waaye yéefar ba nag bu jubadee ba def lu dul noonu da koy noonoo ngir jubadeem googee waaye du ko teg ci kéefar gi rek loola itam moo tax euh, ñuy gis ñu dul jullit di dëkk ci réew yi nga xam ne ay jullit ñoo fa dëkk di doxal seen diine te kenn bundoxataalu leen li ñuy tëje nag ndax wax nañu waxtu waxtu mi ngi jeex mooy kuy wax loolu itam nag ne lislaam dafa xajoo ñeneen ñi daf leen a yaatal war nga cee indi ay misaal yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundoon na ko wax nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam teertoon na benn délégation boo xam ne ay chrétiens yi lañ jóge woon Éthiopie ba bañ dikkee daf leen a teral moom ci boppam moo leen doon ganale ndax nee na la tax mu leen di ganale ba fa jullit ya demee dañ leen a fonkoon moo tax kon nee na man ci sama bopp man yonent bi maay ganale délégation bi donte ne ay chrétien loolu kon nag lu ma ta bàyyi xel la yonent bi ci boppam di ganale ay nit ñoo xam ne du ñuy ay jullit ngir wàccuwaay bu ñu am fa moom muy benn bu ñaareel ba yonent bi itam teertu woon na benn délégation boo xam ne nii ay chrétiens lañ jóge woon Najran yeggoon na ci xajoo leen ba may leen ñuy jaamu la ñuy jaamu ci biir jàkkaam bi loolu itam lu ma ta xel la ku dul jullit ñu may ko muy jaamu la muy jaamu ci biir jàkkay jullit ñi loola fa la xajoo mën a yem beneen ba ci topp itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nangoon naa jël hadiye ju jóge ci mu muqawqis ca Égypte te nekkutoon ab jullit te mooy soxna sam ko joxoon nga xam ne moo mu muy Maariyatul Qibtiya moo juróon yonent moo juróon Ibrahim mii doon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xamante ne ak goromte doxoon na diggante yonent bi ak chrétien yooyu te ay aqbaat dañ dëkkoon Égypte ba tax ñu wax ne nee na woon istawsu bil qibt xayra fa inna lii fihim nasaban wa maa ngi leen di dénk chrétien yooyu nga xamante ni ñooy aqbaal yi te dëkk Égypte doonte ni du ñu ay jullit ndax maa ngi leen di bàyyi loo xel na nag ne am nañ aw askan wu dox sama diggante ak ñoom ak gorolante naka noonu itam Mut'im ibnu Adi doonutoon ab jullit waaye dafa masoon a aar yonente bi mu jógee Taïf yonente bi làqu ci moom ba dugg Màkka mu dimbale ko kooku nee nañ dafa dee ci ak kéefër waaye ba mu faatoo yonente bi delloo na ko njukkal ndax waykatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamante ni mooy xasaan wayoon na Mut'im moomee donte na du ab jullit ngir delloo ko jukkal te mel na yonent bi bég na ca wayoon ko way ndax dafa wax ne falaw anna dëhran axlada majdahul yawma waaxidan la axlada dëhru majdahul yawma Mut'ima bu fekkonte ni jamono dana fi bàyyi kenn ngir ak mbaaxam dana fi bàyyi mu temps mii ngir lim defaral yonente bi dont ne ab yëfar la waaye wax nañu ne ba mu waxee bayit boobu moom xasaan yonente bi sax yegg na ci ay ron xañam di tuuru ngir xëy na bég kum bég ci li xasaan wax ci àqi kooku nga xam nente nii jàppale woon na ko aaroon na ko te doontoon ab jullit sax daana teew céeti yéefar yi bu ab yéefar daa céetal yëgal ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi daana dagg ay yitteem dem fekk ji céet daana seeti yéefar bu bokk daana teral yéefar bu ko siyaare si naka noonu itam ay chrétien sax wàcc nañ ci këram ñëw mu teral leen lalal leen abaayaam ñu toog ca loolu nag kon fala yëpp ak xajoo mën a yem kon waxtaan wi desoon na waaye ginnaaw waxtu foofu la loolu rek lañ ci doon kii wax ngir ne xam ne ne diiney lislaam diiney mbokkoo la diiney lislaam diiney xajoo la xatal nag kon mooy kan mooy koo xam ne dafa yëkkati ngànnaay noonoo jullit ñi kooko moom du ko may dara ndax asidda wa alal kuffaari la wax Sëriñ Tuubaa nee woon ba muy tagg saxaaba yi ne na usulun alal aada masaabiixu fi duja wa kullun sujaa'un sa dil kufri yajzabu ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ ñoom saxaaba ya buñ masaa jàpp ab yéefar bu dëng bu jubut bu leen noonoo buy xeex ak ñoom dañuy dagg te boobu sànni fële xam nga kon buñ dee xajoo nag si mooy diggante jullit ñoo xam ne xeexuñu ak ay yéefar yéefar ya may leen jàmm nañ leen may jàmm Sëriñ nu am te yaakaar yaakaari benn murit bu jàll sëñ Touba amul mën naa dal fa ne di bërëmu waaye bu yegsee fi sëñ Touba fi lay yem sëriñ Touba la nu am te yaakaar yaakaari benn murit bu jàll sëñ tuuba am mën naa dal fa ne di bërëmu waaye bu yegsee fi sëñ Touba fi lay yem